Dias. Barthélémy. Hmm. na nga am lii nii comme numéro ah. mu nekkee prison sax yoroon naa numéro. ah laa ko doon woo. maintenant là tu l'appelles où foo koy woowee. këram këram waaw ko bëgg laaj ndax dina tiré waat pistolet parce que provisoirement nekk. Hmm. ok ah, liberté provisoire. Dias Dias jëttam. bonjour. eh, eh Bachir Sow l'appareil. Yoro Sow 2STV. Yoro Sow. Allô Oui, Yoro Sow 2STV. Ah, 2STV, ça va Ça va bien, oui. Ça va bien. <laughs> naka la. pareil que da nga ma doon toj des moments yi nga xam ne maa ngi nekk si prison bi. non non non c'était de retour kii rek pour euh, waxtaan ak yow. loolu la woon mais musuma la tooñ. mais Dias yow jeex nga de. tu as perdu des kilos ah. et puis man li nga xamante ne bii moom laa la bëgg laaj ñëw ndax di nga nekkaat def jaas de la pistolet wala xam nga provisoirement lañ la jox. xam nga provisoirement la. man ku ma xam-xam ni Barthélémy. oui du koy raxal ku ma xam-xam ni Barthélémy. oui du koy dellu ginnaaw. oui ku ma xam-xam ni Barthélémy du góor boo xamante ni bii da nga koy xool ni reer ay bëtam di xaf. oui ku ma xam ni man Barthélémy je damay dem ba jeex. am na fa ay prisonniers yoo xamante ne bii nii door naa leen biir prison. yow doox naa leen biir prison. ah disons band yi nga dégg. Sénégal yëpp di leen xaxal. di leen moytu di leen def nag su dul noonu man Barthélemy j'ai battu avec eux là-bas. à donc kon gouvernement taxul muy jéem a wax. waaw. oui taxul muy jéem a wax. di wax nag ni je comme damay ñëw commencé léegi léegi. Hmm. waaw damay ñoo commencé léegi léegi. waaw que rien ne m'arrêtera rien ne m'arrêtera amul leen loo xam ne mën na tax Barthélemy en tant que Barthélemy Diaz. Hmm. doomu Jean-Paul Diaz. oui am loo xamante ne bii dina ko raf benn cinq cent dans mes yeux. oui oui yaa may dégg. ak lu mën a xew je serai toujours Barthélemy et je serai toujours Barthélemy je serai toujours Barthélemy et je serai encore toujours Barthélemy et je serai encore toujours Barthélemy Diaz.

en plus. warul daw non non non warul daw xam nit boo fekkee ni yow da ngaa def su fulle boo waxee fulle bul daw bul daw. man j'ai pas froid aux ma de. yow xamuloo doo je suis capable yow xamuloo loolu sax yow di nga may rek waaye yow li ma si boppam yow xamuloo man booy baalu yàlla andi maa a bandi fuuf ragal lu ma pistolet boo ma ko dooree du dugg. ah bon comme pël man pël laa de. Bakary génneel man ay ay jaas ay njaago ragal lu njaago di